alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi waxdahu alhamdulilahi xaqa xamdihi mbokk jullit yi mbokk soppey suukaru koor asalaamualeykum wa rahmatullah xaali Ousmane asalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'i wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi nga xam ni yéen a ngi seetaan seen émission bi di seen suukaru koor di ko seetaan fii ci télévision bi di seen télévision 2STV fa tabarakallahu ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru koor Chérif ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar macha allahu tey lan nga indil mbokki jullit yi waaw kon defe naa dañuy yeggali rek mhm. waxu imaamul jawhari bi mhm. ndax bi mu dénkee doom ji mhm. nee na ko soo buggee sa addina rafet lool te sa àllaaxira koy dàq fuuf mu ne ko ñaar yi nanga ko fàtte ñaar yi bu ko fàtte ba ilaa yawmi diin bu njëkk ba mooy foo jëfatee jëf ju baax nanga ko fàtte yow nga indi nga ko ci man jaa bil xasanati boobu yëpp itam muy wane ni jëf ju baax boo koy jëf daal na yàlla tax beneen bi mooy fu ñu la defetee lu bon wala ñu wax la lu bon jëf ju bon juñ la jëf na nga ko diigal ci sa biir muñ nga gas ko suul ko fàtte ko gis nga di fàttaliku yu ñaaw yuñ la def walla yu ñaaw yuñ la wax loolu mooy indi nit di nekk rancunier mm-hmm. moo tax waa ja ne l'art écrit mm-hmm. la réalité et incontestable mm-hmm. mais le pardon est un gis nga jéggale dafa am solo suñu borom subhanahu wa ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla taseg njëggalam te ku dul jéggale yàlla du la jéggal ku dul yërëme yàlla du la yërëm kon di fàttaliku yu ñaaw yi di fàttaliku démb ci yu rafetul yi loolu mooy indi itam nit di am xolu rancunier nga gis ni itam ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa fatxu makka boo gisee ni mu jëfandikoo ci biir ay mbokkam ak liñ ko def génnee ko dëkk bi mu juddoo yaroo fa màggee fa rey ay sahabaam rey ay mbokkam def ko lu ñaaw tuumaal ko def ko lu ne waaye bu mu ñëwee itam dafa jéggale dangay xool fële tamit sa maam borom Touba xaadimu rasul góor ga ca kaala gu weex mhm. ak li ñu ko def yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp sept ans sept mois sept jours mu nekk ko ci àll bi bi mu dellu dellusee ne cëpp tànkam lan la wax afawtu anil aadai turan yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadi irham jami al wara kon jéggale tafsir kon fàtte lu ñaaw wala lu bon luñ la def loolu lu ci nekk yëpp tafsir abdourahman macha allahu chérif kon fa tabaarakallahu Euh, nga baal ma waaye démb. Mhm. maa ngi am ku ma gis après émission bi. Mhm. mu naa ma bi nga waxee démb ci bokkaale yàlla bu ndaw. Mhm. danga ju fàtteex mooy lan. ma ne ko kon de xam naa boo demee koor gee ma jàppoon rek. waaw ashirkul asgar bokkaale yàlla bu ndaw bi ko saxaaba yi laajee yonent bi salaay salaam. qaala arriya daf ni leen mooy ngistal. ngistal loolu moo waral ñu bëgg lépp loo def ci lu baax nga fàtte ko. daf seen ngistal am na xale yu xamul luy ngistal de. mooy def dara rek pour ñu gis la bëgg gis leen ma. bëgg gis leen ma bëgg gis leen ma parce que damay wax ni. Ndakaarook. Ndarak Cees ak. Mhm. Mhm. Mhm. région yu mag yi. xale yi nekkul kaw ka seen wolof leerul. déedéet wax naa ko fi daaw daaw géej. waaye bàyyiwuñ ci xel. nee naa la suñu am dañu am langage. booy. demee dinaa jaar gàlle incha allah. Mhm. mais xoolal boobu phrase. Mhm. yow da ngay foog ni wolof la waa ji wax. Mhm. <laughs> booy deme dinaa jaar gàlle incha allah. te fekk na booy anglais la. demee français la. dina jaar wolof la. gàlle pulaar la. incha allah arab la <laughs> benn frase nga def ci juróomi langue yu bokkul. moo tax ma ne la ngistal. il faut que nga leeral ko am na ñoo xam duñ ko xam. mooy wanewu waaw kon nag mooy mooy def rek pour ñu gis la. fa tabaarakallahu kon ay dara mm, bu fekkente ni luqmaan al hakim mu ngi dénk doom ji ni ko def ko ci booleel ni ko ñaar yi ngay fàtte mhm. na nga fàtte isaatu xayrika fi xaqika mhm. bu bu la nit defee lu ñaaw mhm. na nga ko fàtte xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax kenn du moom ndax ba ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku la yar dañu adabani rabbi fa ahsana ta'dibi suñu boroom moo ma yar rafetal sama yar mais bu ñu laajee fan la yàlla jaarak ak yonent bi bi mu koy yar ndax dafa ko indi mu nekk ci këram di dem ak di dikk déedéet soxna Aïcha bañ ko laajee lan moo doonoon jikko yonent bi al dañi al alquran la ko la yàlla yare xoolal yàlla mu ngi wax ak sallallahu alayhi wa sallam fa bima rahmatin min allahi linta lahum wa law kunta fadan galida alqalbi lan faddu min hawlika kon nag faafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fi l amri fa ida azamta fa tawakkal ala allahi inna allaha yuhibbu almutawakkilin te ngeen xam ni in yansurkum allahu fala galiba lakum wa in yaxzulkum fa man za alladi yansurukum min baadihi wa ala allahi falyatawakkal almuminuun aaya boobu mu ngi may fàttali sax Abdoulatif Gueye ndeysaan Abdoulatif borom jamra yal na ko yàlla xare aljana te yàlla eh, yërëm ko te yi xeñu yonent bi sa alayhi wasallam yàlla da ko ni gis nga yërmande bu jóge ci yàlla moo def nga nooy <laughs> ni nga nooyee ak yërmande gu jóge ci yàlla moo waral gaa yi di la wër <laughs> ni ñu lay wëree foo toog rek ñu ñëw du loo sangoo du loo takk mais mbaax gi nga baax doo leen toroxal doo leen jànni foo toog bu ñu ñëwee ñu toog nga kaf ñoom ndax yooyu salaay salaam daan na kaf mhm. daan na kafak ak saxaaba yi waaye nag wa xayru xaqin maa ilayhi numi mhm. daawul kafe lu dul dëgg nag moom yonent bi salaay salaam mhm. kaf ak ñoom ñu ree tijji kanamam ñu ñeme ko yàlla ni ko bu fekkoon da nga xat xol da nga gaaw a mer ku ñëw rek nga yuuxu ko ñaari baat ñett ku ko def nga gis sa bopp yuuxu ko kon du ñu toog ci sawet wet <laughs> ni ko nag léegi li ma lay digal mooy faafu anhum dee leen jéggal bul yem ci jéggal leen waaye was wasfax deel jéllale <laughs> léeg-léeg nit ki dina la tooñ nga jéggal ko ba pare nga jekki ba mu yàgg mbir mi ñëw ci sa xel ndaxte tamit nit ki moomul xelam <laughs> nee nañ la fàtte ko mais léeg-léeg day ñëw yàlla ne ko yi ñu lay def ak yi ñu la defoon bu loota ñuy dugg ci lislaam wala bu ñu toogee ci jotaay bi yenn yu sew yi ñuy def ci biir yow sallallahu alayhi wasallam leen ko jéggal waaye nag bu dikkee ci sa xel wasfa deel jëllale mhm. kon lu ñaaw li nga xamante ne keneen def na la ko l'islam dafa bëgg nga di ko fàtte mhm. parce que shérif suñu borom subhaanahu wa taala du fàtte mais bu fekkoonte ne suñu borom mu ngi ñuy topp ci yu bon yi ñuy def mhm. mais kon fu ñu jëm waxu xoolal rek bu fekkoonte ni gis nga benn waykat mu ngi wax yàlla subhanahu wa taala bi muy ñaan di ñaan ba mu yàgg da ko ni allahumma in kaana afuka la yarjuhu zu juramin fa may yajuudu ala al asina bil karami yow suñu borom maa ngi lay ñaan di ko ñaan di ko ñaan ko ñaan ba ñaan yi bari mu ni ko man xam naa ni sax setuma samay bàkkaar bari na waaye dama lay laaj bu fekkoonte ni ku lay tooñ doo ko may kon dama lay laaj ñi la gëmul kan moo leen di defal teraanga <laughs> boo demee tey Europe wala nga dugg Amérique wala nga dugg Asie wala sax Sénégal gi am na fi ñoo xam ne ci lu bon la ñuy xëy ci la ñuy yendu ci la ñuy fanaan mm-hmm. te ñu ngi am teraangay àdduna waxkat bi ni yàlla nag yow mi moom teraangay àdduna yépp mm-hmm. àddunay za at teraanga zahir teraanga baatin nga moom ko mm-hmm. yaa moom wir yaa moom lépp bu fekkoon ku la tooñ doo ko may waaw kon tooñkat yi dëkk ci tooñ la kan moo leen di defal wir kan moo leen di may xéewal moo tax Luqmaanal Hakim imaamul Jawhari way ko ni doom ji doom li ma lay dénk ñaar yi na nga ko fàtte loo def ci lu baax fàtte ko mais lu ñu la def ci lu bon it fàtte ko sërif yàlla dafa bëgg koy baale wax nga ko léegi man laa yaxfiru laa yuxfar ñu borom subhaanahu wa taala ku dul jéggale rek du la jéggal chérif bismillah waaw loolu moo tax euh, dañuy revisiter rek mhm. ndax bu dee weeru koor bu musaana jot yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jibril day ñëw mhm. ñuy nafaraat alquran mhm. alquran wàcc na jàng na ko waaye dañ koy nafaraat ba tax na ñuy fàttaliku waxam jooju mu waxoon abu Aboubacar Saddiq ne ko 313 jikkoo ngi nii ku ci jikkoo jikko yi sa yaram arhamal na safara mu ne ko waa jikko yooyu ndax man am naa ko man Aboubacar mu ne ko yow 313 yëpp am nga ko mu ne ko yan jikko la mu ne ko dangay ngay jokk ku la dog ku la dagg ba ne dootu la laal dootul jëf ak yow dara nee na nga dem nga jokk ko donte moo la tooñ yow nga dem baalu ko ak ànd ak moom nekk benn juboo boobu li ci yàlla dige weeru koor gi nag muy occasion pour ñun ñëpp ñu profité ci gis nga loolu noblesse la du question wàccee sa bopp yow moo la tooñ ba pare ngay dem di baalu bul déglu kooku lu tax mooy kii bul fa dem gënu la ëpp la lii ëpp la lii bul seet yow bul déglu ñooñu am na ñoo xam ne seen xel baaxul rafetul bu leen ñàkk kersa bu leen def dara waaye yow demal yow nga jokk ko xoolal sa diggante ak sa borom bu ko defee ndax yow dangay ngay tooñ toujours sa borom te bëgg nga mu lay jéggal waaye itamit nga dem jokkoo ak moom juboo ak moom loolu mooy si ci kanamu yàlla nekk noble ci kanamu nit ñi du amul solo waaye waaye yàlla bëgg la fonkal la boppam loolu mooy li nga xam moo am solo mu ne ko kon sil man qataaka da ngay ko ku la dog wax sin ila man asa ilayka ngay rafetal ci ki nga xamante ni moo ñaawal jëme ci yow ki nga xamante ni buñ ko laajee ci yow lu ñaaw rek lay wax buñ ko kiyee lu buñ koy jox muy séddale ñëpp lay jox xañ la yow booy séddale tàmbaleel ci moom waaye yow tam lu ñu la laaj ci moom ci lu baax ci lu rafet nga wax ko kon tafsir abdourahman loolu moom defe na chérif fa tabarakallahu di kaat nga ci benn aaya alquran idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim waaye nag wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa du xazin azim suñu boroom subhanahu wa taala daal loolu la dénkaane mhm. mooy képp koo xam ni day def ci yow lu ñaaw mhm. non seulement fàtte ko mais dee ko defal lu rafet ndeysaan parce que ki lay def lu ñaaw toujours nga koy def lu rafet day mujj rus mhm. te bu mujjee rus fi muy mujj rek mooy day mujj mel ni sa surga lay doon day mujj doon sa xarit day mujj di la ñaanal day mujj di la toppatoo day mujj am sa faiblesse mhm. léeg-léeg sax nga teg ko loo xamee ni jaaduwul sax da koy nangu mhm. ndax xool ëllëg kon yàlla moo gën a xam doomu aadama mhm. gis nga sallallahu alayhi wa sallam looloo ko may li mu am yëpp dégg nga maam Seydi Aji Malik way na ko wa bi xayrihi wa bi xaylihi jalabal wara wa li man ajaaboo naylu xayri mara bi yonente bi ci mbaaxam sallallahu alayhi wa sallam lu mu réaliser ci l'islam rek ci la ko réaliser dëgg la waaye garaat bu ko yàlla takkal rek mbaa xam moo tax suñu borom subhanahu wa taala takkal ko ko mhm. waaye am na ci ñoo xam ne nag dañu dëgër bopp mhm. xeex moo tax mhm. kon gis nga fàttere lépp lu ñu la def ci lu ñaaw ci ñii la gën a ware xale yarluwaan xale bi ñu yar ci kër gudul sa kër papa du sa kër yaay boo fàttalikoo yañu la fa doon def ci yu sew doo fa def teraanga te même bu ñu la fa defee lu sewit am na lu baax luñ la fa def te yu sew yooyu ñu la doon def moo tax nag macha allahu yàlla dimbali la kon fàtteel la ñu la fa doon def pour mën a delloo fay bor bi ku ñaareel ki muy njiit ak ku mu mënti doon muy njiitu réew mi muy njiitu commune bi muy njiitu armée bi fu mu mënti doon jàkka ja avant ngay doon jiit am na ñoo xam ne ñoo la jiite woon mm-hmm. am na ñu fi nekkoon lu ñaaw lu ne teg nañ la ko lu bon lu ne def nañ la ko yàlla xëy na bis daal di rocc nguur gi ci ñoom teg ko ci sa loxo suñu borom subhaanahu wa taala nettali na ci li Luqmaan wax Luqmaan nee na doom ji fàtteel yañ la doon def mhm. parti ya nga xamante ne ñoo nekkoon au pouvoir di teg ci yow naka sudul noonu tey ñoom ñoo nekk parti opposition yow yaa nekk au pouvoir fàttee lañ la doon def xamal ni suñu borom moo la jox réew mi mhm. nga tëddee njaaxaanaay mhm. ak njiit loo mën a jiite mhm. kon isaatul eh, gayrika fi xaqika na ko fàtte mbokki jullit yi loolu lañ leen indi loon Chérif Maami bu fekkente ne am na looy tàggoo rek kon tafsir eh, ñu ngi ñaanal nag suñu yaay ju baax suñu jaay ju sell jigéen ju tedd jigéen ju yiw Adja Roqaya Njaay ca Liberté 6 wallaahi suñu yaay la suñu kilifa la suñu sëriñ la du dara lu ñuy yëkkati di soog moom mu ñaanal ñu jox ñu xelam jox ñu xalaatam yaayu maam Balla Sow moomule ñu ngi ñaan yàlla guddal mu bëgg ci diine gi ak ci mbokk gi yëpp ko yàlla defal tafsir kon xam naa bu suba jàmm kon bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bunayhi musibtayni alaamil huda bi sahbihi wa taabiina lahum fahum saadatuna ahlul makarimi wan nada jërëjëf tafsir abdourahman bu demee liberté six nuyul la bokk waaw waaw dëgg la ko baax mu ngi lay nuyu mu ngi si jàmm mu ngi lay nuyu a ak taan day ah, faatu Diop moom ñoom ñoom ñoom mais umu daal dégg naa léegi moom léegi sa xarit benn bakkan macha allah léegi moom benn benn bakkan tubaarkàlla kon nag loolu baax na jërëjëf jërëjëf